Ah, ki nga xamante ne mooy Nabou Dash cinquième mariage am. kuy Nabou Dash. xam nga Nabou Dash. kooku moom xaw ma ko Nabou ah maa ngi koy gis waaw waaw. mooy xale bu kii ñaata mariage amagul. bi mooy juróomeelu sëyam. bu tasee bii mu ñëw ma takk ko xam naa léegi mu tas. est-ce que xam nga ne bu la déggee dina la tontu ndax nee na bii ngeen ñaanal ko mu des si sëy bi parce que. kat des cinq at bii muy quatre. moom nee na moom nee na du fara moom nee na du fara. cinq la def at bii muy six. déedéet bii mooy cinquième am. bu génnee ci bii ma ñëw ma septième ko. bi mooy cinq moom nga naan septième. ah bi mooy cinquième mooy cinquième mariage am. te benn doom la am. axiru samaan nag ñëw na. Mm. waaw maa ngi koy doog. axiru ñëw na de ah, ñëw na de. <laughs> lu tax loolu sëy cinq fois. mais daa tombé lu tax moom nee na bëggul foo bëggul caaxaan du du day bëggul doxaananteeg yooyu ku ko bëgg da ngay ñëw nga labat ko. waaw lu tax muy tas kon jëkkër yi dañoo gaañu wala. <laughs> déedéet. nee daal bu demee ba gisatul lu ko doy sëy bi day génn. ah day génn quoi. Ah. kon moom sëyul te yàlla tax. ah mais ko mu toog nit booy sëy yàlla tax da gumba gumba mhm. tëx luur. Mhm. noonu lañ koy woowee. Mhm. na yoo xam ne sax waroo ci focus. gis nga sëy dafa doy waar sëy du benn fan du ñaari fan. te léegi Sénégal fii sëy ay un mois la deux mois. la ma la la ma waxoon rek nee naa jigéen ñi jigéen ñi sëy fii léegi. ñi nga xam ne dañoo nekk ci internet beet wala ñi nga xam ne dañuy takk jabar mu siiwat yooyu noonu. nañuy nañuy bàyyi nañuy jël exemple ci soxna ay daraat borom këram. Mhm. parce que vraiment ñi ngi sëy sëy bu normal déggoo leen ci jàppal déggoo bàyyil mhm. déggoo xuloo déggoo ngaayoo nañu roy ci ñooñu quoi ngeen sëy. waaw dot bi nag li nga xamante mooy warugal yi 100 millions yeeg 75 yooyu ay ay kii la nii rek yooyu moom. xale yi tendance lañ ko def. non ay joxul million jëm kaw duñ nangoo see. yow mën naa la jox 1 million. Mhm. nga bëgg maa sagal génn jox naa la 10 loolu dara. loolu d'accord jigéen ñi si def seen xel mais soo jàkk nit di nga xam kii ba xam am na 100 millions wala amul 100 millions waaw xaalis du fen du ah, boo ko amee rek day feeñ ci yaa ngi nii astuut yaa ngi nii mi ngi feeñ yow. <laughs> am déet sëñ bi amiin waay ah. amiin waay. Ah, dëgg la xaalis du fen. amiin bilaay xaalis du fen. du fen xoolal ñi ñàkkoon jamonoy 2017. Mhm. ba mhm. changement bi ñu am. Mhm. waa parce que xaalis bi ni muy duggee ci ñoom changement day am. dañuy day feeñ nit boo ne koo jàkk di xam ba xam am na 100 millions wala amul 100 millions yu muy maye. est que gis nga jëkkëru Nabou Dash bi ñuy waxtaanee nii. ah kuy maamam kuy bàyyiwaat bàyyi gis ngeen gars yi nañ bàyyi mbàkk mbàkk gii. ndax dañoo jël sax dégg mbàkk ku jug naan mbàkk ku jug naan mbàkk. Ah, est-ce que seexaluñ ko. waaw baax na ko ko seexal. ah, ah mu nekk mbàkk mbàkk te sa bàyyi si de moom xaw na xorom ah. te bu doon bu doon Mbacke Mbacke la nga xam. ah wax dëgg baayam boo nee diw doomi diw la kay ñu xam baayam parce que Mbacke Mbacke gi yaatu na man xam naa ci lu bëri. Ah, léegi dañ lay bàyyi loolu yow nga gëstu ñu ko. naa ko waaw ah, kay na.